Euh, ami internet yu MPROD TV maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax vraiment di man mbégte mu rëy jàkkaarloowaat ak yéen ci biir MPROD TV tey MPROD TV dafa indi lu bees tàkk gis nga fii ñu taxaw moom mooy résidence Serigne Abo Madiana Mbacké résidence Serigne Aziz Abo Serigne Aziz Abo ibnu Serigne Abo Mbacké Serigne Abo Mbacké ibnu Serigne Baara tey fii ci buntu këram lanu taxaw li ko waral. moom mooy dafa am xale boo xamante ni miin na micro bi di micro improtiv yi ñu gën ko xam ci Jami Gueye ñi naan ko alias Dada tey buntu kër sëriñam la ñu taxaw tey fas yéenee wala mu bañ leen a wax ñu dugg ci biir ñu xam li ñu koy defal ci biir en tout cas ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bu mu ànd ak sama caméraman bu mu duggee si biir di ngeen xam ne tey xale boobu dafa war a dégg alxayri ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. sama caméraman laay àndal dugg ci biir biir kër sëñ Aziz Abou Madiana xool li xew ci biir jërë ngeen jëf mbokk yi lii laa leen doon wax ne xale bi nga xamante ni moom mooy téye micro bi di micro improtive TV bés bu yàlla sàkk di ànd ak Medoune Diouf surtout Bour Sine Coumba Ndoffène Diouf bi ku ne xam Bour Sine Coumba Ndoffène Diouf ndax moom moom moo fi seere woon wax ni Bamba fi gën foofu tey ñaar ñooñu la yàlla boole diggante Jamy Gueye ak ki nga xamante ni moom mooy Medoune Diouf borom TFM ànd di liggéey liggéey bu rafet ànd di liggéey te yàlla rek tax ànd di liggéey lillaahi wahdahu xaalisan ba yàlla tudd tey seen diggante alxayri war a dox seen diggante nga xam ne loolu mbiru sunu borom la waaye nag félicitation Medoune Diouf ndax tey yëfi kilifa rek nga def mbiru kilifa rek nga wane di ànd ak nit di liggéey ak moom ba cofeel dox sa diggante ak moom nga ne kilifa rek ngay doon te yëfi kilifa rek ngay def Medoune Diouf damay dugg fii maa ngi nii kër sëñ Aziz Abou Madiane yal na yàlla barkeel sëy bi ci daraja unité bi di ko ñaanal nag suma rak suma doom suma xarit Jami Guèye alias Dada caméraman ñoo ngi ci biir ci teewaay Thierno Ndiaye Pàcceer Pàcceer doom yaa bi duñ juuf teewaayu Fadel Niang teewaay teewaayu Sidi Lo et tant ñu ñëpp ñu ngi nii biir kër sëñ Aziz Abou Madiane. Hmm? يا مالك العباد والبلاد وباركا فينا واسع أمرنا يا مسبا بخير رد درنا لنا استجب يا خالق الكبار وجملة الصغار أنت الباري وهب لنا ذرية تديم ألم على صالح يا خديم وهب لنا ذرية تديم على ملا صالح يا قديم شيخ أبو مدينة مرتو شيخ أبو مدينة وفيق مع أولادي يا مالك العباد والبلاد moo tax bi ñu dama ni man fii laa après dem waaw ni leen fii laa bu ma jógee fii fee la fële tëju na leen ma fii ak pantre ba xam naa ko soog fii te waaw ci wax naa leen mooy rakku papa yi Jami Guèye mi leen bëgg waaw di Alioune Badara kii ñi moom maa leen yar ah, samay rakk lañ samay xarit lañu yow bokkoo ci xale ba léegi xam nga nii mais sànq dañu wax rek mu ni ma Badara ni ma mais grand soo ko mayee woon rendre ñu compte kenn du ko ñemee dindi loolu mbokk la te mbokk gi gën a neex yàlla mooy mbokk dëkkandoo mais nag geñu ko ci bàyyi yàlla bàyyi la waaye dëkkandoo mooy mbokk gi xam ni moo saf yàlla yàlla nañ ko yàlla sàmmale ni ñu ànde nii noonu la maam yaa àndee woon waaye ñoom bi ñu ñuy gis seeni jur dundal loolu ci dëkk ci dëkk ga te ni ñu dëkkee ci dëkkandoo ga ñoom ñu gën ko feddali luñ mosuñu leen fekk ci luñ leen di wax eh maa ñu leen ci jëfin wu ñaaw ba xool leen ba ñu xool ñu ñu ciipatu leen baa ñu dumoyu leen amul la seen bàyyi nekkee woon xirtal leen ci ni leen na mbokk gi bëggante te toppante ñoom ñii ca la ñu nekk mënuleen gën seeni mbokk ñi yilif ci mbokk gi taamu ñu yilif ñu yàlla moo ni ñoo ñu yilif nangu leen ñoom ñu nangu dëkkandoo benn mus a jam ci seen karaw gu ñuul ba bu weex di gane karaw li jëppantewuñu suñu meloon na neen kii mu leen yar du lu ñu mën a def dina am limite ci ñoom waaye kenn mësu leen a dab ci luñ leen di naan lii wala lii wala lalee kon lu daggee ci ñoom danañ am ci yaakaar ca ñoom ndax yaakaar ga ñu amoon ci seeni waajur feeñ na ci ñoom kon yal yàlla sottal mbir mi niñ ci yaakaar yëpp yal na ko yàlla def fii nag sama man sama ndey fóotal na sëñ Baara Mouhamadou Lamine sama ndey yenoon a xeer ci carrière Touba ànd ak ndeyam ànd ak baayam baayam bu baax ba sëñ Abou sunu kër la gënoon a miin boobu mi ngi am ndey ju xam ni mag la ci man waaye soxna mbay lañ ko doon wax ko ñu ñoom Alpha Diallo ci bopp koñ bi la soxna mbay dëkkoon ba mu wëy juróom moo ko moom lañ ko jox àddiya ba mu ñu tiimee xool ni ñun ñëpp ni yéen de di ngeen at mi ñun ñëpp at mi ñamu ne woon yéen du ngeen at mi at mi wuñu toppante googu nag am ci samay waajur ak say waajur ndax Cheikh Ahmadou Bamba sama maam rek ko ko fekk xomaak ak ñaari sondeel bii tàkk bii fay mu indi jébbal ko ko mu róof sama maam ay loxoom yu sell yooyu taf ko ci dënn bi ni ko tafsir Cheikh Abdoulaye tafsir Cheikh Abdoulaye tafsir Cheikh Abdoulaye sama maam ni ko Mbàkke ñett yoon mun ko Cheikh Mamadou Lamine Dramé Al Kabir nelaw na nelaw na kon lii du tey ñii nag seen maama seede woon sa maam ñii kon mu du ñu wut si taalibe la ci kër gi dagitu gaar mi guñ tàbbal ci wilaaya la te wilaaya yi ko dar dafa foor na sa maam defoon ca seen maam tuxu fa la fa Cheikh na Cheikh Saad bu defoon tuxu fa seen kër maam sa kër maam Maram Mbàkke lépp tàkke na fa wuti seen kër kër Seydi Hadji Malick nga fa ñëpp nga fa ba ci kër sëy naa di maamu gi kon seede ba mu seede woon sa maam ñoom ñi de xawma kan waaye xam nañ ne barkeel na ñu ñëw fii fii fii fii ci ëttu sëñ Abo Madiana sa maam Cheikh Ahmadou Bamba ni ko xam turam doo lakk mais nañu muus ku ko dégg sax te ko ko xam doolak ñun ñoo teel a doylu rek dañu doylu waaye ñii sunu maam yii wax naa ko sànq gars yi ne man ñii ñoo gën gënal ku mën a doon. maa ngi sant sëñ Baara. jërëjëf Balla Maram ay sa Sadio Maam Jaara bu ma def borom jërëjëf ñu ne man ci géej gi man ci jéeri. moo duggee ma nekk euh, Barsax ma nekk ci tax amoo Madiyaana mii nga xëy ne kii moo ko fi toogal man seen bés ku ci dem mooy euh, euh, doomu ma ci moom moom la ñu mbàkk bi daaw lañ fi ñëw balay suñu def génn defal kon yal yàlla guddalu fanam te jon bu liggéey sama mag di ma téen jàmbatuma si ndax bale ko na leen yore moom naa leen doole sant salaamaaleykum sëñ bi Mbacke ñu ngi lay ziar bu baax ñaan yàlla yàggal fi sëñ Muntaxa lool te mu wér ñu lay ñaanal bu baax yow ci sa taxawaay ak sa mëneel ak sa lépp yàlla gën ko dëgëral wax ji du gudd sama mag ku ma doo fen juuf moo moom mooy papa yi Médoune moo ma délégué eh, ne ma eh, moo ne Médoune bu dee ndakaaru nga ki ngay wut ndakaaru la dëkk demal ci sa papa Saliou wax ko moom dina xam ni mu koy organiser. ba ma waxee loolu moo daal di woo Fodé Ndaw maag moom souvent ñooy ñooy faral di ànd ak kii rakkam la kii moom ku ma noo ñoo bokk ndey ak baay Fodé ma koor jeexal nox ñu may koor yi seen baay kii seen nijaay Ali ku ñuy wax Ali naa ndaw mooy seen baay ni kii wax ci affaire seede boobu ci sëñ Bamba seede woon noonu la ñuy duggee ci kër yëpp kii nett li ma papaam sëñ Abdou Aziz mas na ca jamonoom ñëw Saalum war a dellu Tiwaawan papaam a ko jox jibam ca à l'époque boobu oto amul jibam ba boobu papaam chef de canton moo ko jox jib ba mu ñibbee Tiwaawan moo tax ba mu ne waaw 1900. 1930. waaw waaw nag man <laughs> dama yow sama bopp. Uh-huh. waaw maa ngi woon. waaw yow de Seex. dama la xam ko doxalee noonu ah, man damaa defoon xam nga li wax ittihaad ndax can sëñ bi Touba mi ngi ko bàyyi woon ci ñetti téeméer. Mm-hmm. ñaar téeméer sax la ko bàyyi woon sëñ Fall yi ñett ba ñu def ci waat ne jamono ngi dox ndax liñ jubluwoon lu mu tuut tuut ki koy may am ci benn ndima mu sol waaye léegi gis nañ ne kon ñett téeméer mën a tut yéene ñu ko yokk de ko ba 16000 la ko sëñ Abdou bàyyi woon sëñ Muntaxa bi ñëwee man defoon naa yitte fii ba def ko 40000 waaw sëñ Muntaxa ñëw fa def ko 23000 léegi 23000 daal ci la ñun murit ci lañ tëgg ñaar téeméer ndigal ak yàggoon waaye <coughs> lii baax na. waaw ñu joxe kon les laa daan laaj. waaw moo tax ñu joxe fukk. <laughs> mooy ndigal. waaw moo leen joxoon bi fii. wala moo leen joxoon nee ko ñii nag ñoom. ñoo ko jokkal may ko di des xam nga lu muy tudd. waaw <laughs> daal mat na. waaw mu ngoog kon saat bi maye defe naa suñ jël can can gu teew can gu teew waaw liñ ne ne ñoo ko may addi uh, maamam suñu abo waaw can gu teew ak kilifa kilifa gaa ngi nii Badara Gueye mi mooy tey mag seen kër hmm, bayu baay bi loolu ñu ñay jox ah loolu moom maa sama yoon ne bayu baay ak wax hmm? lay wax ñett yi mën nañoo fas ngeen waxtaan ma ne sëñ Thierno yéen a koy waxtaan yow man mii sëñ Bàkk Sonn na ma dooma rahmatullahi wa barakatuh sëñ Moustapha bi moom mujj bàyyi ma sëñ Sidi Matar yoon yooyu yëpp ba yu bàyyoo man lañ koy jox waaye xas ba nañ ko mane ma ne bu gën a gay sëy xas bu ma ko ma ne bu ci dara tegee rek benn condition day da dara waaye lu rafet la ndax ndax sa baay ji nga sa doom ji nga jur mu am jafe-jafe sëyam nga dem di ko diggante yombut góor a góor boo fukkee dënn mu tëdd mu mbay na bàyyi ndax ñu ne rafet naa wut kenn sama xarit mu wër jikkoom doxal diggante bi ndax loolu rek la pour bu ëllëgee ak defar ju rafet la daal diine dàqu ko waaye bu ci fukki junni laag ñaar fukki laag fanweer laag dangay kii ni bu ci waree rek comme ndawtal yi day daal su ndawtal yi sunna la waaye jigéen liñ ciy teg bind ko di ko fay waat loolu rek moo ko yàq waaye bay baay moom kenn fii daal li ñuy laaj fii daal ceen gi la ñuy laaj ak waali mooy kilifa wala mu kàll wala ku kum kum kum délégué ak ak ak euh, can gu teew euh, day na ak lan loolu teew na kilifa gaa ngi nii can gi teew na wakki wakki kilifa yi ko jigéen gaa nga ne góor gaa ngi ne kon nag man na mën nañu mën nañu sunna si na ñaan mu may ko ñaan ñu may ko rek ñu des mën a wax dara ci baax rek du dara ndax ñii sëy mu ngi soppi discours yi koy waxee day wees <laughs> làmb ji bala ñoo dem la ñu a wax régal de bi waaye dañuy dem ba ci biir terrain di ko wax du sotti dañoo nag fii <laughs> li ñu war dañ ko war a góor gi wax li ñuy def ak moom mooy la ndax mag mu toll ñi Eh, dajewuñ fenn xaalis caaxaan ku màggatul rek doon sama gu bopp ku déggatul bàyyi nag ah. <laughs> ma ne nit ñi foo dajalewuñu fi sunna yonte bi moo ñu fa ak jaamu yàlla kon nañ koy defal nañ leen xamal noonu ba ñu xam ne caaxaanuñu fi woon man mii dama ñii xam nañ ko dañoo nekk dëj mm, waaye bañ waxee ma ne sama rakk demal lii ñu fi lële sunna la lii sunna la kon naa teew bii dem waaye kenn tamit démb lu mel ni amoon nañ ko ca fële dawuma ci ndax dëj bi muy bàyyi géey mu kii doon na may doomam bëggoon ma ñëw ñëw ci biir mu waaye kon li ñu fi dajee duy caaxaan kon mm, ñaanal laaj kenn ma maye te dénk leen ñaar ñu ko seq ne li ñu seq lu garaaw la mooy contrat wu sëy te yàlla moo moo nu ko digal moo julli gi ñu doon def yàlla nu ko digal yàlla ko su def sunnaam sunnatullahi fil ard yàlla def sunna sëy wàcce maam aadama fotogrammeel ko ñuy séyee ñaari seex ñuy séyante ba mu taxaw ba mu am tuuti mën a ko taxawal bu ko kenn defati ilaa ma xasalaam yàlla sii sa ñëwee di benn góor mu warees loola ñuy takkante ba tey jii ñëw te yàlla ruu yëpp la bindandoo kat jàllandoo leen waaye moo programme sunnaam la moo ko bëggee noonu léegi nag li tax ñu koy maye di tiit loolu la ñu war a wax dafa am ñu ñame yàlla ba koy fay wala ñu ñame yàlla ba ciy dugg daa am ko ñame yàlla bay takk jabar te fas yéene wu ko yor wala dafa am ko takk ñame yàlla bay dugg ci jëkkër te fas yéene waaw ndax nee nañ moom daaw jéeg maa ngi koy wax ko bëri daaw jéeg na daaw daaw jéeg kon foo ma yëf yi xaw mbas mi yàlla yàlla musal ñu si moo tax jotuma kii waaye dañ ne woon esthétique dakaar Dakar sëy maye yàlla bu ci bii bokk 65 pour cent day tas ci at bi dañuy wax Sénégal sax la ñuy wax waaye man maa weddi waa Touba ndax Touba ga ma dëkk la CMA quartier bu ma dëkk vingt deux cent ñaari sey fa tas te benn defaraat nañ ko kon kon kon buñ ne Sénégal rek nag waroon nañ ñoo <laughs> génne yéen dëkk yi am kilifa boo demee bëgg dëkk bu nga dëkk wala yéen dëkk yi kon Dakar lañ bëgg a wax dag waxaale Sénégal te Dakar rek du Sénégal waaye sëy ku la ne maa ngi koy def yàlla taxut rek nee ko doo ci am li nga bëgg yàlla kot nga ci mën a duggee boo takkee ndaw si ngir xaalis doo ci am doo ci am sëy boo dugg góor ngir xaalis wala teraanga doo ko ci doo ci am yàlla kott képp dong nga ciy dugg am ci dër ndax yàllaa lànk ne man axamaal bi nu yaati loolu nag mooy problème sëy Dakar loolu ñoom laa firi sëyu carte moom kuy carte yàlla allah njaayloo nee na <laughs> mën naa daal njaayloo na kuy carte ak yàlla nëbb weesu na noonu la ko daan waxee yàlla nga waaw waxin la borom xam-xam ngeen de da ngeen bind lay téere rek nee na koy kàtt yàlla yàlla lay sa intention sëy bi da koo xam moo tax boo boolewul sëy ba du doo pexe pexe du baax yow góor gi yow jigéen kon nag kuy dugg ci sëy na nga ci dugg ngir yàlla xaalis sëyut juddu sëyut xamul sëy nit te nit ku nite mooy sëy te mooy kan ko am diine diine nag mooy kilifa. ku am diine am kilifa liberté indépendance ba pare yooyu yëpp amul ay baat lu ñuy nit waaye nit ba mu ko yàlla moomee ba noppi la ko moomaat ba tey ba bañ koy wàqe suul ba suba mu koy àtte nit mënta am liberté jigéen saabu bu liberté du sëy góor gi bu liberté du jabar ndax ko ne war nga am ku la ne ee eh, kaay nga jàpp mu la baat mu sa kilifa te Sénégal moom yàlla mayoon nañu ko balaa diine ñëw moo tax sunuñ ci sa baay sa nijaay sa naanang sa bàjjëm ñii la wër dañoo bare bare bare bari bare bare ci kilifa ba mun mënoo def dara. lu dañ kumpa bu kumpa dañee kenn nawatul sa morom dañuy wax rek. waaw ah, lay bi lax ñu bon sërteem kenn amewut ku ne sa bopp nga amee waaye sa peur la ñëw wax sa peur xamu ko peur yàlla mi la digal say bi loo ca def xam na ko dina la ko fa yaatu bi yàlla moo koy seere aaya bi ñuy jàng sax dafa garaaw. aay bi ñuy takk sëy bi dafa garaaw de wa taqullaaha li si tasaalu bi wala ila kaala alikum raqiban garaaw na yàlla ne ragal leen yàlla mi nga xam ni dina leen laaj sëy bi ngeen takk te moom yàlla mu ngi la doon fuglu raqib mooy surveiller mu ngi loon surveiller kon kay loo ca jaxase ba say mbokk ne yaa wax dëgg it yàlla xam na ne yaa fen te kaay ma wax la benn alaj jaru jàngalekat nga ku bëgg a tas di nga tas dama ngaa say nax say bokk bañ farle la mhm. naa ci fekk ku bëgg a wàcc mën ngaa wàcc mën ngaa ndax say bokk bañ faral la waaye yàlla mu mën ko mënoo ko nag kon nag ngeen wax leen ne leen ñu ragal yàlla ci bii góor gi na fas yéene yor yàlla ngir sunna si yàlla sunu Seydina Muhammad bi mu teg ci kawam def ko deflu diglu ko mhm. muy sunna si yàlla mhm. muy doxal yéene ji la àdduna mhm. parce que bu sëy amul doon rek àdduna bi organisation yàlla da yàqu yàlla da cee tag yar bi indi ci ay dalil joxe ci misaal ci alxuraan yu bari udduhum li abaihim waaw bu ngeen xamul bàyyam nag nanguwut ñëw ku ne dina war am bàyyi am famille woo leen leen ci seen turu baay ku taxoon ma parce que dafa am lu leen bëgg a jox su ne bu ngeen xamal seen baay a ah, seen seen seen mbokk ci diine booba dañuy jàpp mel na jàpp indi xeer bi amul famille nangam nag sëy mais lépp yàlla mi nga bañ mbir mi jaxasoo parce que ku ne war nga am famille sunnatullaahi la wóole leen kon seen baay diw ku ko jur Modou Gueye Jamilatu Gueye waa kañ yàlla na wóole leen seen baay fay lam taxala mu fa axwaanagu fi diini wa ma waaliikum bu ngeen xamul baay mbokkam mu mbokkal ci diine mu nangu ko woon koo téye diine te bañ koo def tabanun adopté wu ko de waaye da ko jël ngir diine ndax daana gis jàmm ji amul ay bokk am koo jël ngir diine ngir yàlla na ngir waaye am na fu juum jóge waaw moo tax sama question ba tey Sénégal tontoguñ ma te wax naa ko jërëjëf dama ne ki ñaan si jabar ak ki may jabar kan moo gën parce que daa romb kër yu bari ñëw sa kër ñaan si la sa doom <laughs> ah ah yow mi ko nangoo may nag donc yar ba mu màgg defar ba mu baax nga jël maye mu yóbbu te sañatoo ca dara duut la tàggu duut la nangam ku ci gën a baax borom xam-xam yi ah sëriñ de fekk déggoon na ko lool borom daara ji <laughs> boo koy lim ñëpp da gën a dégg fekk ci réew mi ci laa koy boole de moom da fekk ku ci ku gën a baax yéen géwël yéen ëpp xam-xam ñëpp téere ngeen war di bind di li ngeen di wax kenn du Alxuraan piir ngeen do <laughs> Cheikh Thierno ñaar ñooñu ku gën a baax. ki la may. ki la hmm. ki la may. Hmm. Hmm. ci nga ah ki nangoo maye nag. waaw ki romb ki taamu la taamu la nag lu muy wër muy ngor ji diine ji ngaar wareef joo xam su ko séntul woon ci yéen du ñëw ndax yaakaaree na ko fa waaw man nag damay wax ne kon sama conclusion xel comme comme ñoom ñaar ñëpp a baax te gën faw mu am <laughs> waaw ñoom ñaar ñëpp baax nañ ndax ki la ñaan si wax di yàlla nga may ko baax na waaye bu ñu delloo kër yonante bi rek gis nag kat moo gën a baax sallallahu alayhi ndax foofa lañ ñu royloo alayhi salaatu salaam la yàlla ne laqad kaan ko fii rasuula uswatun xasana liman kaan yarjullaah wal yawmal aaxir nee na kër yonante bi laa la royloo moo tax këram amul vie privée lépp xew na fa boo fa demee rek xam kat ñoom ñaar gën kon da fa def rek <laughs> ndax ñaari saar yi sóorat nisaa ak sóorat axsaab sóoratu sóoratu eh, axsaab sax dañ naan saaru jigéen mu ndawaat la parce que jigéen li ci yàlla wax lépp ak sëy ak famille wax ko lu bari Alxuraan ba mu jeex jigéen ak sëy moo ko fees ak miraas li ci des lépp comme yàlla li ci yàlla lu bari wut ku def lu baax dem sa war ku def àjjana janaante ji waaye consor nii bu ngeen sëyee nii fi ndémb rek maa ko waxtaan fii procédure bi sas sëy bu ko lislaam ak jul doon jëfandikoo benn sëy du tas ndax daa gudd a gudd ba lañ dañ cay lijjante lijjante ba ñooña màggat doom ci ñëw di atte xanaa ko nañ ba <laughs> lislaam da koo guddal waaye dañuy ñun dañuy takk takkum jullit fase fasam saay saay ah loolu yàlla dugal takkum lislaam la ñuy takk jullit jàkk ñaan taxaw xutba alquran wuti seer wut lépp lislaam la wax bu ñuy fase nag saay saay la ñuy fase ndaw saay xëy ma jël naa samay bagage loolu diine sëy kenn du ko tase noonu aja fase naa génne sama kenn du ko lislaam teg bu ñu ci doon jaar te waman lim yaxkum bi ma anzala fa ulaakumul faasiquun yàlla neen ko wut lii mu rëddal saay saay nga ñëwaat ne kaafiroon wedd wedd ñëwaat nangam parce que buñ ci doon jaarale sëy niñ ko takke nii règlement yëpp mat ñii ñaan ñëw ñii maye ñëw te seere yi ñëw can gi teew ñu xutba ñaan bu buñ ko doon def procédure sëy ba amee problème ñu topp procédure yoon ni ko lislaam bi mu leer kon balaa tas ñëwenti tas waaye dina yeex ndax daa yàgg dafa yàgg yàgg yàgg man la nit mën a fee judd sëy bay lang-lange ñuy defar li laam naan defal nii après étape bi après étape bi après étape bi ba doom ji ñëw di ci naan waaye yéen papa lu ngeen di wax yaay ah dafa gudd yàlla ba yàlla te <laughs> ba yónni woon sallallahu alayhi mais nag heureusement wala malheureusement duñ yàlla takkanteeruñ ndax problème la responsable de bàyyi boobu mii daan wax ni yàlla yàlla faylu ko bu ñu ñëwee ne aslam naf si jébbul naa ci yow sa xol muuñ xamoo li mu la wax ah ndax li mu def fi Dakar bariwul a taal nit daal ñu jëm sax mu la demati diw parce que responsabilité diggante nit yéen mag ma toll yàlla ak ni mu garaawee ak ni mu fulla kon la kaay dox suñu diggante nga nga kontaan taalibe yi duñu wërsëg duñu xaalis barke yàlla ku ci bëgg a dëggal doo ci kontaan parce que duñ xaalis duñ wërsëg problème la problème lañ de ah parce que nooy def saa si rek problème la di yaa ngi ca yaa takk yaa ngi ca dëj yaa ngi ca naan yaa ngi ca toori yaa ngi ci yaa defaree yaa ngi ca saa si rek problème la te baatin ba gën a garaaw parce que yàlla boo leen waxul dëgg yaaru moom dëgg bu subaa mm, responsable kon nañ ragal yàlla gëm yow muy gësa gëm ne ëllëg daal yàlla moom bind na ko te xalima gu wow na ku def lu baax dina la ko fay yante bi li ñu mujjee dénk ca ajjul wi daa ragal leen yàlla te ragal yàlla seen jigéen ñi jigéen dafa faraasil jëlu kër baayam jëlu kër ndeyam doona ko màggat màggatal ko yow bul nee di xëy di takk ba ngoon te moom benn jëkkër a mën am and ragal leen yàlla seen jigéen ñi ragal leen yàlla ci seen jigéen ñi ndax ba koy xam ne ko àl sallallahu alayhi wasallam ci xajju bi daal loolu lañu tàggoo ay sawaatu kon maa ngi leen koy dénk di ko digal sa bopp jigéen moom ku ko mënta muñal yow toon nga koy takk ndax tooñ rek lañ man wallaay dëgg la sëñ Abdoulaye moom nañuy tooñ si rek tooñ bi gën a garaaw mooy xëy tàllal xëy tàllal tooñ la di koy xëy di ko tàllal lee bañ la ba mu des yàlla te yonte benn wax an naf xolil mar yi góor moom nay joxe rek góor nay joxe comme kee daa mën a tàllal day teg rek waaye moom it mu ne ko yow comme da ngay tàllal rek bul xeeb suñ gaaf yi ñu xam senegal yëpp bari na gaafu lu ne lañ koy wax gaafu kii benn kii man góomu ko attewuma ci ñu xam-xam nañ ko waaye ñetti gaaf yi yonte bi neen tala cernu gaaf la yan la jigéen junaan lii nee na gaaf la waaye ja moom sa sa sa la day xëy wuti rek di te nu mu def dina indi boo ko xeebalee rayoo ko ah moo tax sallallahu alayhi wa sallam ki yàlla yónnoon lii ak taaxam diw mee nee na musiba la ci nga am na nga doyloo lim am te lim am moo neex ci yow yow oto jàmbur ba da nga caa dugg taaxam jàmbur lu si yoon jigéen ju am dignité <laughs> waxu leen moom yàq duumi naf sa kenn du ko wax ñu nekk ci potoog ñu ci def yooyu saw yooyu dafay rey góor parce que góor si dit góor dafa am lu koy alimenté yooyu kenn du ko def góor parce que li ma koy wax lu sëy la koy tas góor gi du ko ma a wax ndax bu ko waxee ñu ñu reetaan ko damaa cëpput pourtant cëpput daa metti <laughs> boo ko waxee ñu ne ral la sëy bu tas bu nekk boo laajee waaje moom la ko tas ko ndax bu ko waxee ñu ne kii dof na wala nangam nangam parce que day sew ay leer leer hmm. te pourtant onk ak binneeg cipp doog yëpp dafa garaaw dafa rëy te boo ko waxee ñu reetaan la looy wax sama lu mu def dafa maa cipputu te pourtant cipputu de yaa ngi moom kott ak yàlla war laa fegal ceytaane jigéen war laa defal mu cipputu la méttiwut guddi gi day yàgg <laughs> ah moo tax ku ko ci def yontam nee na ba guddi gay jeex malaaka yi dañ lay rëbb yàlla day rëbb boo ca nekk du rafet jot sax hmm? ah déedéet jigéen kay góor teg ko loxo mooy dara de soos ma séparation de corps rek ay yooyu yëfi tubaab yi bon yooyu diine xamu ko ku sa boroom kër teg loxo nga teg ko te amoo ngant yonent bi nee na alayhi salaatu salaam malaaka yi dañ lay rëbb yonent yi day rëbb gaañ baax day rëbb boo ca dee gan du rafet njort merum yàlla nga yóbbaale laxaratulaahi mooy merum yàlla wala yaas bi moo tax lu garaaw la te dañ koy fayee te rey tubaab yeeg naa ngam naam yooyu sun maam yi daa woon ko dégg sax kër gi moom dépasse bi lay jox bu ci wàññi dërëm nag bu ci mooy kër gi teel ko sa bopp ku ne xam ko góor gi teel ko sa bopp loolu lislaam àdduna leer na ci teel ko boppam mooy di ko toppatoo boppam li lépp mooy kàddoom ji bu la nee wow na te dëppoo lislaam neel waaw bàyyil diw bàyyi ko gi seen sëy yu bari li ngeen ci boole te bokku ci mooy problème bi téléphone bii li mu yàq la téléphone ba noppi teg ñu ne ah da ngay ne wax da ngeen ne branche bi doo ko ne El Hadj Thierno Ndiaye sama papa Thierno Ndiaye laa doon waxal nuyu na la da nga ko da bàyyi mu ne Thiel te moom it civilisé ak irrigation du la mayee laaj. xool ba roose ndànk nga bokk ci biir l'islam muy loolu jigéen mm. téléphone saxam am ko soxla wut boo téléphoné ba noppi comme boo doon dama tàggoo te téléphone moom dama koy wax ne moom yàq na réew mi waaye defar na it bi ku bëgg a baax am ah, mën ngaa tëju sa néeg dem Amérique léegi dem Afrique dem États-Unis dem fu la neex waaye yow boo nee coupé téléphone sa borom kër bu ñëwee boo sa ñëw génn di te tàgguwoo ko bitig bii rek da lay tristesse aj bi yàlla farataal ci yow da saa am relation borom kër kon leen waxee danga koy tàggu kat doom la am kat doom la am ci yow te mooy priorité lépp sa yaay yi li fatul la tàggu naa sama yaay tàggu naa sama baay ay caaxaan la bi la sa baay yi lifee mooy bi nga nekk këram boo génnee këram boo mu jox sa borom kër sa waayu borom kër rek la yàlla déglu boo faatu woon bu nee baax nga yàlla ne baax na yóbbu la àjjana na woor nga julli nga say julli juróomi maktubaat yi ñu la bindal rek boo ko defee rek topp sa borom ko bi rek yàlla bindal laaj te góor bi defee yëpp doo xam fu nag nanga ko teel sa bopp teel ko njabootam maa ngi koy wax ne jigéen ay jikko yu lislaam ŋaañ te may ko jigéen am na bu mel na nay maa koy wax ak ñàkk yitte ah waaw lislaam dafa bëgg bas parce que dayoo su góoru reet mu ngeen saafante waaye jigéen ma may nañ ko ah ah parce que neexut bu neexut borom këram nag góor nga jël siñ ko rey ko ngeen akolaatante du diine de xew na waaye du diine may nañ la ah sëñ Badara na nga def ana waa kër du il ma sa dem sa yoon ba fa jàmmate ba sa borom kër ñaaw njort yaa ko loolu la jigéen kon mën naa ñàkk yi te tuuti te génn bar sax lañ koy be ñaareel ba nay lislaam daa bañ ko nay waaye comme yow li nga yor moom ko mën ngaa nay waa ji wàññi dépasse weer ak jox la sa bàjjan ñëw na ba jox naa ko jox naa ci sëñ jox naa kii ba mu des ñaar fukki fan too ñëw ko si gor mënta lépp mënta saa ci mati moo tax ñu ne jigéen may nañ ko mën ay ci yenn condition parce que lim moomut parce que dépasse waa ji moom kër gi day wut di la jox boo ko mayee tooñ nga te gor gor mënta tàll maa ngi ànd ak sama xarit moom mii alaaj Mahfous ña nga ko jur wax naa ko léegi sunu papa ji toog waaw alaaj Bekaay su su alaaji Bekaay su ma ndijaay la mook suma yaay bokk ndey kii kii Mahfou Niang ko jur maamam mooy Aliou Lam Aliou Lam moo àndoon ak Serigne Touba 1912 ba 27 boo nee Serigne Touba nee na mu ne la Serigne Touba nee na ma. Ibrahima Lam ci njaaram loolu say mbokk la. moom Ibrahima Lam ay mbokkam lañu. Ibrahima ñoom de xam naa leen. ñooy waa gàdd waa gàdd ah, njàngale bi dafa am solo. ndax tax sañ Moussa Ka ne woon li tax way yuy wolof te waroon di yaaram damaa yéene gaa ñi jàngul xam boromam li nga fi jàngale man de li ma ci jàng tey bari na ci yu baax ci nit ni mu war a comporté woo ak soxnaam yooyu yëpp am na lu bari lu ma ci jàng ci soxna it ni mu war a comporté ak borom këram ci jigéen boo nekkee moom da nga ko war a yërëm yooyu yëpp tey jàng naa ci lu bari Mbàkke ci kaddu gu rafet yi nga fi jàllale yal na yàlla guddal sa fan. li tax ma ne du ma ñëw ci jotaay bii te Medoune juuf indi ñu fi jotaay bi ñu jóg ba dem te wax ma li ma sekk ak Medoune su boobaa du baax ci man dinaa baale lu ma naqari moo tax Mbàkke ma lay ñaan ndigal ndax du ay teggin te du ay wor mu Mbàkke nga wax ba pare ñu yëkkati benn baat di ko ci teg ndax nun Serigne Touba rek la nu gëm balay sa buri sëriñ Mbàkke Maram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 taxawaayu Modou ñii ne ñi ngeen gis bokk di liggéey. ah waaw. yàgg na. ñoo fa yàgg na. yàlla baaxe leen ci ay janeeram ni yéenay taal TFM. Mm-hmm. ñoom ñu taal TFM TFM tàkk ba léegi ñu naan. dëgg la mooma. yëpp télé yi am nañu waaye dañuy wax buñ ne la meilleure ñu ni TFM. TFM kon ñoom ñii la. ñii la ñu ngi leen di nuyu yéen ñii mbokk Médoune Diouf ak yéen di ak ak yéen ñi nga xam ne yéenay liggéey ak ñoom waaye sëñ bi sama xol sedd na de sëñ bi yàlla na nga gudd fan sëñ bi ñu yaakaar ci yow yàlla nañ gudd fan man dem ñaan naa yàlla bañ fi gëjëti te li may wax ni trisé wu ma sama xol laa ko tibbee maa sant naa la gërëm naa la ndax yaa ma fi indi dama ko doon rek. te jox na ma tur bu bees kon lii du ay caaxaan firnde la preuve mu sëñ Abo loolu day mel ne lu may miite dama ko ciy taf DK loolu service des mines laa ko yóbbu sëriñ preuve bu sëñ Abdou Aziz Abo dëgg la waaw pàcceer kontaan naa de waaye di nuyuwaat bu baax sëñ Cheikh mu sëñ Babacar Sy sëñ Cissé mu sëñ Babacar Sy di wóllare Medoune bu baax Mhm. Mhm. waaw waaw mu sëñ Mansour bër mhm. la euh, Mbàkke ñu ngi lay ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay wàccuwaayu nag sa wàccuwaayu maam Seexul Xaddim la ndax léegi dégg naa nga wax ci say biir yi wax ne ndax jotaayu kilifa lii rek ndax lii bokk na ci promotion yi nga xam ne yàlla nga koy jàllale ci sunu dund. Euh, ndax wax naa ne sa maam dafa baax lool sa maam Seexul Xadiim mos naa toog ca këram gu mag ca Jurbel am ku romb naan ay wërësool ay wërësool waaw ay wërësool bi sëriñ bi déggee ay wërësool tombeeg dongo yi génn dem yelwaani ba ñëw addiyee ji yëpp ñu indi ko def ko comme ni ñu defee euh, tàngal ji guru di waajal takk gi. Mm-hmm. gaa yi jóor ko sëriñ bi dégg ay wa a sool moom nag ay wër a sool ja dara ñoroot ko ca kenn ko ca ñoroon muy Seydina Muhammad ndax baatub rasool ga te kooku mu ngi doon jaay rasool yi nga xam ne mooy am ci lalu weñ yi mag ñi daan toog ca jamono. rasool yooyu la romb di jaay sëñ Touba dégg ay wër a sool ay wër a sool a sool mu ne woo leen ma koog naan ay wër a bi mu ñëwee tombeek sëriñ bi lépp loo xam ne joxe woon nañ ko sëriñ bi ne joxal leen ma ko mu daal di dem kon Mbàkke bu nu toogee fekkee lu mel nii ndax medun lépp loo xam ne waxtaan nga ak moom fii ci kër gi bi mu paree waxtaanee nañ ko téléphone ma ne ko kon na nga xam ne sëriñ bi jikko si la la may jabar mayul la ko ci tur mayul la ko ci dara ci jikko la la mayee soxna ndax yaa wax ci sa wax ne kiñ ñu royloo toppaloo ñu ko ñu bëgg a xam léppam lu ñu réer ñu bëgg mu leeri nañ dem ko seete ci kenn ki muy Seydunaa Muhammad borom bi taggewut ko lenn lu dul jikko bu doon ne bayre Yuusuf ko ko ëppoon bu doon ne taar Yuusufa waaye ci jikko nanaa ko si la la sëriñ bi mayee soxna kon bu la sëriñ bi mayee soxna euh, euh, ci ci jikko kon jikko joojo ku ne war na feerañi ma ne ko Ndakaaru nekk na jotaay boo xam ne xatul lu fi waay nekkee nit ñi danañ ko xam mu takk nag xale boo xam ne xale bu xam boppam la am personnalité ndax dëkk bi kenn mënul nax kenn ndax alaaji noo maamam Seexul Xadim moom mii bind na ci mbindam ne gaa yi naan ko sëriñ bi doo nit mu ni leen nit laa xam ngeen kan moodul nit mooy borom yaa maalikal mulki yaa man jallaxan xawadin mm-hmm. waaye xam jamihal wara yaa xaddi yarada mm-hmm. sëñ Bamba nee na man de bu ma neexoon bi muy ñaan bu ko neexoon ne taalube doom kese walla sët ak taalube waaye sëriñ bi bi muy ñaan dane irxam jëmmi xal wara pour ñëpp magam alaaji malik feelu ko ca wet ga ne ixfir ummati war xam bi ummati wasur laha waj buran xan rabbi yàllaahu waaye irxam ak ixfir lii lii ngeen bu réew mi ixfir ummati bu alaaji malik bi alaaji Maalik daa taxaw ca côté ba ne ixfir li ummati warxam bi ummati wasur laha wajburan xan rabbi yallaahu sa maam Seexul Xadim ne irxam jëmi xal wara waaye ñaari ixfir li ummati ak irxam jëmi xal ndar képp réew mi ñaar yii réew mi démb ma toog ci plateau télé ña ko seetaan dégg nañ ko ñu ne sëriñ bi woote na màggal ga ma ne leen sëriñ bi bàyyi woon na xel bis bu mel nii ñu ne ma pour lan ma ne leen bind na xaside gu ñuy wax malla bu sifaay alhamdulilah euh, euh, malla bu sifaay yi euh, mu nga cay bind mbind moomu mbind ca di ci di ci saaru balaa yu mel nii rek xam ndan li mun sili lanaa wa daa i wa mun silil sifaay wa daa i wa dawaayi man amaraxe baada bi doxaayi est-ce que corona jamono ju xew na est-ce que booba jamono jooju koronaa xew na kon sëriñ bi ci ci baatinam mu ngi doon xool bis yu mel nii. Mhm. te corona sëriñ bi nee na mbooleem mbooleem mi jàngoro ci àdduna. xam dañ li mun sili lanaa wa daa i sifaa i wa daa waaw wa dawaa i wa dawaa i kon sëriñ bi waaw wa dawaa yi wa ndax xafsu ak warsu xafsu ak warsu xam nga ci langaasu saalum saalum bi ma nekkee mooy tax wax ji di waaw ci xaraab sa sang ba sëñ mënsoor borom daara ji daan na wax ne ne gaañaa ngi ci biir gaañi te bu ñu moytuwul gaañi gaañi danañu gaañ gaañi kon saaru pàcceerno gi li nga wax waxi borom bi la ñuy wax ndax wax bu rafetee boo demee ci sunna sunna nangu wax bu ñaawee nga dem ci sunna sunna dàq jarul xaala laaw xaala rasul communicateur nag boo gisee yonentu bi léppam gën a jàll mooy ne communiqué biñ ko communiqué moo taxam mbiram jàll alaaj Mahawa Cissé euh, Fadel sang bi yéen ñëpp maa ngi leen di siyaara sëriñ abo ñu ngi lay siyaara bu baax ndax bi ma ko waxee dama ne ko sëñ aboo de xaw ma ko waaye ci jenn jëmm laa déggee tur wa muy Fatou Guewel defe naa wéy na ko Faat Lawbe Faat Lawbe Faat Lawbe wéy na loola kon jëmm jooju miin nañ ko kon ñu ngi ñaan sëy bi yàlla na barkeel jami na xale bu baax la ku ko maye maye ku am jom yàlla na yàlla barkeel sëy bi alaaji Medoune sunu soppe la sunu xarit la sunu wëllëre la ñoo ngi siyaar ay papaam ak ñëm ñëpp di ñaan yàlla yàlla na yàlla barkeel sëy bi waaxiru dahwaana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum mbooloo mi ngeen baan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad-daalliin amiin Jamilatu Guèye doomi Modou Guèye ak Ngone Guèye maa ngi Medoune Diouf doomi Kumba Ndofène Diouf ak ma jigéen ndaw ma jigéen waaye ndaw nduur de la min nduur waaw daana am de <laughs> càmmoñ bi mu defal la yaa comme nduur comme yaa koot nduur maa ngi koy tooñ keroog mu ne mooy yaay sëñ Abu waaw nga dégg ba ca ba ca nga dégg waaw waaw moom it ndeysaan ah bëggoon de eh,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 doomi moodu Guèye ak Ngone Guèye maa ngi koy dagaanal Medoune Diouf doomi Kumandoo Fen Diouf ak ma jigéen Ndour ci farsi yàlla sulus Muhammad auzu billahi min shururi bismillahir rahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka Fen Diouf ak ma jigéen duur maa ngi koy may Jamilatu Guèye doomi Modou Guèye ak Ngoone Gueye ci fartas yàlla sunu su Muhammad ak can gu teew ak kilifa gu teew alhamdulillahi min seetaan nañu bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin maaliki yawmi amiin mais doon Diouf doomi Kumba Ndoofeen Diouf ak ma jigéen Ndour maa ngi koy may Jamilatu Gueye doomi Modou Gueye ak Ngoone Gueye ci fartas yàlla sunu su Muhammad ak ndigalul kilifa ak can gu teew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 aouzu billahi min shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim yaa ayyuhan naas taqu rabbakum lazi xalaqakum min nafsin waahidatin wa bassa minhumaa rijaalan kasiiran wattaqullaaha lazii tasaaluuna bihi wal arham inna llaaha kaana aleykum raqiiba aouzu billahi min shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim sadaq sadaq wa wadaana anka sadaq lazii anqada sadaq wa rafa'naa laka zikrak wa inna ma'a al-usri yusran ma'a al-usri yusran fa izaa faragta fansab ilaa rabbanaa hab lanaa min azwaajináa wa zurriyyaatinaa qurrata a'yunin waj'alnaa lil muttaqiina imaamaa اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بما أغلق والخاتم بما سبق الناصر الحق والقرآن الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا صلاة نجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقنا بها جميع الحاجات وتقنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أهل الدرجات وتبلغنا بها أقصى الخيرات من جميع الخيرات في الحياة والممات ربنا هب لنا من رسلنا وسرنا قرة أعين وتلعنتكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله wa tawbatan xubilat mahminat ruhidat rufiat maxsaw jatan salahat bi dinillah wa saw jatan salihatan tuinu ala tuqa wal birru ya muhid barkat xaal sallallahu sallam nabi wala alihi wa sallam subhana rabbika wa sallam wa salamun wa salamun wa salamun al muslim walhamdulillahi rabbil alamin yàlla yàlla def barke ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana mu roote ko ci maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul ñoo ngi ñaan lii nga defal sunu doom sunu nawle sunu xarit Modou Diouf defal ko jamiyatu Guèye Jamila Guèye mi nga xam ne moom baayam yaa ngi nii toog jaamam yaa ngi nii toog kër ndeyam a ngi nii toog mënuñu la ko fay ñoo ngi ñaan yàlla yàlla lëkkale seen lépp ni nga ko ñaanee yàlla bu seytaane am cër ci sëy yàlla ci doomi albarka juddu yàlla na yokkute am ci ñoom ñaar ba ñu yëg ko yaa la fóot seeni xol dëppale ko ñu bennoo te nga nekk sunu kanam yàgg fi lool ci sunu kanam mag am na waaye man nga doon mag te doon màgget yal na yàlla tëggal ñu la nga doon mag ci sunu biir yore lépp cëri ndaw gu dëgër waxambaane te bañ a màgget yaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke sa maam Cheikh Ahmadou Bamba barke sa maam Cheikh Ahmad Lamine Bara sa barke baay bi nga toogee fii ki nga xam ne nag mooy Cheikh Abou Madiane barke Cheikh na Cheikh Saad bu sa wóllëre maam ja barke Cheikh na Cheikh Saadu Abihi sa wóllëre maam ja xam ne bu Moussa yónni Cheikh Mahfou ni ko demal ci Cheikh Ahmadou Bamba sama waaja ki nga xam ne bi muy dem géej weer la bi muy buy ñëw jant lay doon ku mu neex ak ku mu naqari boo bañee mu wowal sa pot weer yi bu egsee def ko naan bi ngay jéggi dégg man roos sax sa maam rek. comme ñun moom nekk nañ jànku ba yàlla boole ñoo ki nga xamante ni jëkkëru njëkkante la. vraiment dañuy sant waaye nag am na soxna nag. wax dëgg yàlla soxna gëm boppam macha allah. na nga def. <laughs> waaw boo frère <laughs> looy wax eh, maa ngi ziar sant yàlla. julli si bi. Mm-hmm. parce que. ku santuwul nit doo sant yàlla di leen nuyu yéen seen liggéey rafet na di gërëm nag Médoune xam nga ñu koy gërëm parce que daf ñu sagal gis nga góor bu jóge romb kër yëpp ñëw dugg ci kër gi tey xool Diamy Gueye ba mu doy ko mu jël ko soxna ab cant war na ko kon Médoune ñu ngi lay sant bu baax bu dee man am naa tuuti ngërëm ci li ma jot a séq ak moom ci wàllu liggéey yàlla na yàlla barkeel sëy bi sawaay jami aussi yàqul aar bi xale la nekk ci pecc mi rafetal ko ba ni mu ñëwee dugg ci théâtre rafetal ko ba ni mu déggee alxayr kon sëy bi yàlla na si yàlla def barke ci barke yonent bi sallallahu alayhi medun yàlla yàlla wërsëgal la que yor jigéen yombul déedéet kon yàlla na yàlla wërsëgal la sëy boo gis nag am na ay soppe que am na ay noon mais yàlla na soppe yi bég yàlla nooni ruus ci barke yoona bi sallallahu yamul nag ramul yamul nag ci dem xew de ak mën a ndaw talaate Medoune Diouf Medoune Diouf tey kontaan nañu ñoo ngi fii nag Pikine ñëpp xam nañ Medoune Diouf ba impro ñëpp xam nañ Medoune Diouf ci bëgg senegal ak mën a wuy ji xew ak mën a dimbaliwaate tey ngay jël soxna lan ngay wax ba pare d'abord waaw diri sant yàlla rek sant yàlla santaat yàlla santaat yàlla ndax lii yëpp mbirum suñu borom la lii jiitu na suñu juddu waaw ndax yàlla bindoon na ne bés dina ñëw mbirum ji jël soxna su tudd Jamy donc li may def rek lu sant yàlla gërëm ko gërëm ay mbokkam waaw ndax mënoon naa dugg ci kër gi ñu xoolee ma neneen xam nga waaye vraiment ñoom dañ maa bëgg bëgg bëgg ba comprendre ma daal vraiment ay nit ñu baax lañ yàlla bu doon sa aras la Diamy Gueye nag nekk koo xam ne jàmbaara di liggéeykat yàlla bool leen ni nga koy waxee lan nga koy waxal moom waaw ah, mu góorgóorlu rek góorgóorlu rek góorgóorlu rek ndax li ci kanam moom rawali bët mhm. te yàlla nañu yàlla aar téye ñu yiir ñu dëgg la ba dara du mën ci sëy wi waaw yaa ma waxoon benn wax na ma bëf ci ngor rek. yaakaar naa ne ngor googu tey wuy si na. jërëjëf jërëjëf Balla dama ne. preuve preuve. tey sama xol dafa sedd. xam nga lu ko waral. jëmm ji taxaw. jëmm ji nit ku baax nit ku gore nit ku ñàkk ki ñaan nit ku mën a wax lu baax ku mën a boole xam nga olof yi dañ ne kuy ñaw tafasoo wëñ ga mboros ma jagadi medun du fekke lu ñaaw du ko wax bokkuñu ci micro bokkunu improd de moom moom moom improd waaye ak ak ñu cee yaatal moom xam na ne man Bantamba TV lan nekk waaye daf may woo ma ñëw ñu dem defi reportage ñu jox ko xaalis bu bari Médoune ne ma jëlal lépp loolu nit ku gorewul mënuloo ko waaye li ma gën a neex ci Médoune juuf mooy jikko ju rafet ji ak xar baax yi xoolal tey ba ñu demee kër sëñ Aziz Abo sëñ Abdou Aziz boo toog wax kàddu yu rafet yi ñu waroon a may tàkkusaan mu téye ñu ba timis doog a maye wax wax ju baax loolu sa mbaax a ko waral sa sëy bi yàlla na ko yàlla barkeel mënoon ngaa yàq sunu rakk ji waaye defuloo ko de def nga yëfu kilifa yàlla na sa jàmm yàgg sama papa nag nee na le vrai sens du mot ressources humaines mi ngi ci biir doomu aadama yi mais duñ fax fexe na ba jaxasoog réew mi ci yu baax xoolal ni mel ci nees xoolal ni mel ci wàllu xoolal ni mel ci weex le saoudien Medoune Diouf sama xarit jërëjëf Diagne Diagne sunu yaay ngi nii kii toog ni moom mooy yaay Jami Gueye Sidi Medoune Diouf madame Diouf yaay booy nuyu nañ la maa ngi lay ziar ci loo ne taw fii xi mbaa yaa ngi am jàmm ñu xol yi sedd na guy mi ngi mel ne wala gu mboot looy wax ci sa doom Jami ak jëkkëram Medoune Diouf waa kontaan ci rek ndax dëkk dafa metti rawatina nga sa rakk boobu ngeen bokk ndey baay mu doon artiste ndax aar bi fi dafa doy waar tey bu leneen amoon rek dañ naan ca mag ja mais tey lii du fierté sama yaay sama fierté la man ndax jami dañoo nekk soo ko gisee ngët ngëtam ak fëggoom danga naan dafa metti mais bu ma nekkoo eh barki Serigne Baara du ci teg baat ñu ñëw sama kër leer na leen Médoune ma fa doon ñëw leer na ko leer na baal la su ma ko waxee du ci teg baat déggal na ma. paaka ñaari boor nga. ma bu baax. te mënoon na ni nag dañoo bokk ndey ak baay rek tey ñu bëri dañuy dégg Issa Gueye Chéri Babacar mais buñ ma gis sama jëmm dañuy tiit ndax dañuy fa sama tur egg sama jëmm eggu fa te fu ma egg moo fa eggal macha allah fu mu toog di ma waxal lu baax bisam bii nag damaa bëgg mu sedd dama koy ñaanal yàlla mu sedd ba mel ne ndoxum galaas waaw suñu borom nag bàyyi kook Médoune Médoune doon ku baax du sax liggéey bi leen liyee ñoom ñaar mais taaliba Serigne Touba gi mu doon ñu bokk nag li ñu bokk. muy sëtu buur siin te foog naa ne kii Medoune Diouf ma setaloon Serigne Bamba ba mu set wecc kon kooku ku mu fëgg sa bunt rek di nga ko ubbil. Medoune bu mu fëggee kër ku mu ku mu fëggoon sa bunt tey waxuma la benn eh, man rek waxu man rek mën naa bañ a ubbi. mais fin bi yëpp mën nañ ko ubbil du xaalis nag ndax boo waxee rek ni ngi dañ ko foog ne xaalis Medoune baax na. am na respect ci nit barki Seydina Muhammad li muy doon doon kilifa ko am respect la mais nit du ma xool ci bët wallahi azim du ma xool du siggi xool ma ni ci bët te mënoon na ni isamu bu mii ma ñëw fekk kook jami cër ba muy xoolee tey ni muy xoolee sama yaay damay xoolee te amaa tey bu ñëwoon fekk jami am benn comportement wala ñu wan ko fit wala doyadi wala manqué du jël guróom di ko jox jami tey bu joxee jami guróom man sama fierté la dama koy bàyyi dama koy ñaanal nag diggante ak jami lépp lum ci xalaat yàlla na kawe njottam yàlla nañ soog ko ni asamaan ak suuf yàlla musal leen nag ñu mucc ni biteel muccee ci biir suuf ñu mucc it ni mbaam muccee ci tere itam xarit ndax fii lu yàq noonu ko yàq wala mbataan ak ndok yàlla na ci suñu borom musal ci baat bi Seydina Muhammad ak ak sa colère gu baax gi ak sa colère gu baax gii mooy maanaam Jamil na xam ni nekkatul ci responsabilité ndeyam ak kilifaam sa responsabilité la nekk léegi donc koo war a dundal dëkkal ko dëkkoo ko moom it ci gannaaw gi muy li mu koy digal sa waaw rek na xam ni sama yaay nee na ma sama papa déedéet yooyu jeex na léegi sa ndigal rek bul dem mu toog defal nga def sa bëgg-bëgg moo war a nekk bëgg-bëggam su ko defee sunu borom bi subhaanahu wa taala mi ngi ci ñaan njaboot gu barkeel sunu oto dafa paanoon moo tax ñii jiitunu waaye ñoo fa bokkoon nekk léegi jóg wax na lu rafet nag ci yow sa xarit yi wax na lu rafet ci yow xam naa danga ko seetaan ci kaset bi sa mbokk yi ñëwoon tamit te ànd ak Cheikh Thierno Ndiaye wax na lu rafet kon nag yal ci yàlla laf cat te defal leen ci barke ñu fekk ko tatal ko man maay seen jëwriñ ci sama biir daayira la ne ñu sañ sëñ Abdas Abo kon nag euh, mu ngi noonu laf cat mu ngi noonu jërëjëf Cheikh Saliou jërëjëf Cheikh Saliou sang ba ca maax waa danañ ko way mooy waaja yër mën jam ñaa ngi ne jërëjëf Cheikh Saliou jërëjëf maax maax waa danañ ko way waaja yër mën jam ñaa jërëjëfe Seex Saaliwu jërëjëfe Seex Saaliwu sang ba ca maax waa ko way muy waaja yër mane jam ñaange ne jërëjëfe waaw sang ba ca waa danañ ko way muy waaja yër mane jam ñaange kuy Baay Faal yëngatul kuy Baay Faal sang ba ca waa danañ ko way muy waaja yër mane jam ñaange ne jërëjëfe Seex waaw sang ba ca waa danañ yu kawe muy waaja yër mën a jaam ñaa Medoune Diouf yow am nga ndam Medoune Diouf yow am nga Medoune Diouf yow am nga ndam Medoune Diouf yow am nga ndam yow a jaam ñaangi sama jami gey sama jami gey am nga am mbedun Juuf am nga ndaw yow ki la defal Serigne Saliou borom ñuurul yàlla ñëppam jàmm waaye kii bu xewlee te te waxuma loolu loolu loolu la du lu man jàng xasaayit lañ ma xamee ak tagg Serigne Saliou Mbacke tagg Serigne Touba waaye bay bal la sëñ Cissé nit ku baax nit ku baax ngi nit koo xamante ni Médoune di as gor Baye Balla wax na ko léegi ca mbooloo ma Médoune bu la jàppee nit mënta fexe fexe fexe fexe fexe fexe ba mu bàyyi la muy ku mën a téye doomu aadama di ko mën a jëflanteeg nit soxna Jami yàlla boole na la ak borom kër bu baax kii as gor la ku mën a téye nit la ku fonk nitam la te ku mën nitam la te jamono jii fi mu toll doomu aadama yi ñi foo dafa bëri bu la yàlla boolee ak ku fere rek jàpp ko. waaye jamiñ nga téye sa tànk bëgg sa bopp am fulla li ngay def aar bi nga nekk nii kenn yebu la ci sa mbokk yi ngay liggéeyandool ci loolu lañ lay jëwee saa su nekk koo ne jami mun la fulla fayda liggéey wàcc ñibbisi te loolu kat mooy wayu jigéen gu baax fuñ la fekk yaag sa mag yi ñoom isa ak sa xarit yi yéenay ànd yéenay nekk loolu moo gën a yokk a tax Médoune fonk la Médoune bëgg la sa digganteeg Médoune barke Seydina Mouhamed nii rek la mënoon demee merun bi ma njëkkee wax ne ma soxna jam mi kat cofeel mi nga jóge ci man jëm ci moom dama ne ko cofeel fi mu jógee jëm ci ki mu jëm jëm na ki nit ku baax yàlla la yàlla defal jàmm ju baree bari waaye sëñ Cissé mi medun muy as gor xam nga medun ñun ñun ak sëriñ si daanaka ñoo bokk bokk ay see waaye moom boo gisee tax tey bi si bëri na ñiy takk soxna tey bëri na mu bàyyi léppam sa jikko ak sa baax ak maanaam mën a mën a jaxasoog doomu aadama goo man loolu moo tax sëñ Cissé bàyyi lépp barki sëñ Touba Mbacke boobu ba léegi ñu ngi koy kar kar di ko woo mën a leen déedéet ki xewle tey du n'importe kii ci man kon yàlla na yàlla defal jàmm man nag damaa mënta wax soxna Jami nee na mi ngi lay gërëm mi ngi lay sant ndax doo doonatoo ko ndaw ki dëkk bi barki Serigne Saliou Mbacke boo demee Tivaouane ca kaw lañ lay teg boo demee Touba ca kaw lañ lay teg kon soo bàyyee sa yitte yëpp ak ni bis yi bëree nga ñëw nii jami kontaan na xolam sedd na damay bàyyi gars yi rek ñu ñu wéele ñoo ko yar ca ginnaaw ba mu ñëw dugg biir ko Icotaf kon li ñu war a wax ci moom bari na mu nekk xale boo xam ne bi mu duggee ci aar ak léegi yàgg na yàggul mais ku am personnalité la ku am fulla la kenn yabu ko li ma gën a neex ci moom mooy waa kër Serigne Aziz abo Madiane rek lay nooyee te kafewu ko réewu ko tey bésam bii firnde na ko ndax tey bi mu amee bés bu mel ni ñun ñëpp a daje kër Serigne Aziz Abou muy lu rafet mu bokk ak Issa nag ndey ak baay ak ndey Fallou Gueye ak Binte Gueye waaye deful dara lu ñaaw waxul dara lu ñaaw diggante ba rafet lool balaa nga koo xam nga fekk leen seen kër. Jami sama rakk ji xam nga ni yow tey boo xewlee ngay sunu rakk bokk ci ñun dina jël micro wax la wax la lu baax. Gueye ñàmbeeg maar xaasim ak Seyna bu fëre ca gi cawaan bi sóori mi ci mbaaw mari mat leen mi ci kàddu gi dama jami may leen ko mu si ada ah, doo waa bàyyi ñu daaneel koo muur jox la dañ koy muur di la ko jox nag foofu nga war a xool ne yow mii bu tolloo woon ak yow kenn du ko muur di la ko jox ndax góor kenn du ko muur di ko jox jigéen kon nag mi ngi noonu moom tamit lam ko dama sëñ bi yóbbal si woon dinaa ko wax lu góorgóorlu nag vraiment suñu xel dal na ndax ne noon ni jullit nga wax xamal nañ fi nga bokk xamal nañ no ci famille bu baax nga bokk ndax fa nga bokk moom ku warkat amu fa hmm, ndax wax ko dëgg rek fa nekk ndax ku témoigné sëñ Touba xam hmm. nañ ne kooku borom fit la borom jom la te gor pire la hmm. te loolu moom daanaka looy séntu soo gis sa mag ñi rek boo ko xoolee seet di gis ko si kon nag ñu a lay ñaanal yal na yàlla barkeel sëy bi amiin yal na fa ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla na ko yàlla defal yàlla def sa si njaboot gu barkeel njaboot du ah, te fa ngay toll yàlla defal ay promotion nga weesu ndax suñu xol dal na ndax sëriñ bi dalal na suñu xel mbokk tamit dal na suñu xel def vraiment kuñ ko taxaw wax ko si nit nga may jox ko sa doom da ngay santaat ndax kuy wër lu baax ngay wër ndax sëriñ wax na ko nee ku romb bundu kër yëpp mm-hmm. ñëw sa bundu kër sa kër ne kii laa bëgg vraiment yëg nga tim nga am yéen a yëkkat sa li nga moom jox ko nga sonn si yar ko toppatoo ko ba mu mel na war a mel yëg ko jox ko sant yàlla rek kon nag yàlla yàlla yàlla musal seytaane yàlla yokk xéwal yokk barke koo sën te nga ciy sënt kon yàlla na ko yàlla defal yàlla may tamit moom bu royee ci ndeyam bii ko jub ndeysaan dina waaw ba ma fay njëkk a noo yarandoo maag moom ci benn kër ndax magam hmm. noo bokk benn baay bu bokk ba muy sëy si kër bi ay xale yu ndaw lan mosu kenn mosu faa dóor xale mosu faa merloo kenn la ko neex la ko naq di koo xam liggéey sëy toppatoo jëkkëram toppatoo ay gorom kenn mosu koo xas si dara kenn mosu koo wax ne ko lu tax di defoo kon nag moom dañ koy ñaanal fan ndeyam jaarul mu jaar fa bu ko jaaree moom am naa si yaakaar ne sa xol dina seet kon nag yàlla leen yàlla jàppale hmm? kontaan naa asalaamaaleykum. léegi nag franchement tey am nañ contentement bu rëy ndax ñaañu ñu fi dajale boo xoolee Medoune juuf Medoune mu baax mi Medoune mu gore mi Medoune mu tabe mi mu ànd ak jami ci ngor ak dignité ak loo xamante ni man dama ko fekkee parce que du daraay tax may wax ndax lu nit wax ci àdduna di nga ko wax sa bàmmeel Medoune nag nekk koo xamante ni amaana. daa jàppale Diamy Gueye am ci moom yërmande looloo jur cofeel gi lu nit xamul mooy loolu dakaa jàppale xëcc ko di ko jàngal liggéey am ci moom yërmande ba cofeel fekk ko ca looloo waral seen ànd parce que tey jii mooy li may wax sànq rek que tey peut-être mooy li ma wax dañoo ànd ci yërmande ak ngor ba looloo waral tey mu tax ko ndax kila dugal ci métier jàngal la ba nga mën cee tedd ba pare tout wëlbatikuwaat nekkaat sa borom kër Diamy Gueye lu mu gis ci àddinaam ak li mu def ci àddinaam yëpp mënu ci am mu def ku sut ndax ñaar yi gën a rëy ci àddina loo ko defal jàngal na ko métier mu li koy teralal ci nga xam ne ci la teraangaam nekk ñu mu wëlbatikuwaat nekk borom këram kon mënul gis lu ëpp medun ay waajuram sax li mu doon def ci moom amaana moo gën a rëy ci lay waajuram def ci moom ndax damay faral di dégg ñu naan kilo dugal métier bu fekkee góor la kilo dugal néegu góor jàngale la amoo amoo fayam kon tey jii moom mi ko jàngal métier ba pare wul bu diwaat di ko denc dañuy ñaan sëy bi yàlla na nekk sëy yi ñu taqee fa aras sëy yi nga xamante ni mooy sëy yi nga xamante ni kenn du ko arrangé suñu borom bi taxawu leen ci doole di naa Muhammad te nag kuy wër gor kuy wër gor sama bàmmeel laa taxaw di wax kuy wër ko nag jàpp kii ndax dama fekk ay jours yoo xamante ni sëñ bi dañuy ànd wallahi lazim dañuy ànd du hésiter lu ñu bëgg moom loolu la bëgg te man mësumaa xam ni ngoro am na ci ku discret ngi nii ku am bàmmeelu biir a ngi nii ku am sutura ngi nii ndax sutura bi weesuwul oh dañuy waxante lu ne ñun ñett ñu nekkee amuñu nëbboo amuñu dara mënumaa fexe ba xam ñoom ñaar ñu ngi nekk te nekk di génn nañ deux ans man de lii ma tiital <laughs> ah caméraman nag nekkete moo ëpp sutura ci dëkk bi Medoune mi sëy bi billahi yàlla na ko suñu borom bi boole ci sëy àjjana yi mais nag daa am koo xamante ne dañ koy gis à travers ci Medoune muy sëñ Cissé borom vidange parce que su ma waxee ci moom lu baax li ma Medoune wax rek laay waxaat ndax seequñu maax moom lu ma lu ma ko war a mën a waxalee lu baax mais Médoune wax na ma ci moom lu baax loo xamante ni war naa war a mën a wax ci moom lu baax yaa ngi taxawu nit ñi di leen jàppale yàlla na suñu borom bi gën a yokk kurus bi yàlla na la suñu borom bi gën a taxaw ba nga am kàttan koo yeggalee sëñ Babacar Si nga doyloo Bakare Garamaar aramloo maam Kumba Caam bugguma penda xaar yàlla bopp coor yéen seen sëriñ moo ne woon su ma rusul woon sama baay képp ku ma mënti woo ci photo mu wuyu ko sëñ Babacar Si moom la yàlla bëgg ba wàccal ko saar yàllaa ne xulange dabil naasi maliki naasi illaahi naasi min sheri was naasi allazi was fi sudur naasi min jënti wal naasi lépp si la nga ànd ki nga xamante ne mooy suma xaritu sëriñ taalibe sëñ fàllu ateex mi moom mu baax mi ah moom dama ñëw Paris ma dégg ko fa sëñ bi ne ma am na ku ma la war a booleel mu jox la ay bagage xam nga boobu jotuñoo gisante kon yow nag yow yàlla na la suñu borom bi taxawu sëñ bi yàlla suñu borom bi yokku sa taxaw sa kàttan ak sa wërsëg tey nag li ma bëggoo wax yëpp mënu ma xaax ndax xol bu fees tey dama kontaan tey I am happy I am happy doy na doy na prenez les micro boobu. maa ngi nii rek. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ñu ñëw fekk la fii ci kër Diamy Gueye tey nga dégg nouvelle bu neex bi dégg ni tey dañ koy may borom kër tey ban yëge nga am ak yan kii nga affinité nga am ak Diamy. Diamy Gueye day sama sama ñu yàgg lool macha allah man moom euh, seem Tijaani la ba ginnaaw raay ñëwaat si teexam kon yàgg nañu lool plus de vingt ans ñu xamante macha allah boobu ba tey euh, dara ñaawut elle est restée la même même jami bi rek ngay gis toujours foo ko gis rek même kanam bi ngay gis te si lu muy dugg rek dugal la si jami ngay euh, yëgul yëgul yëgul star gi mu doon. yëgul star benn yoon ci lu muy dugg rek dina la woo laaj la conseil donte day ñëw du la fa fekk sax dina la woo téléphone ne la soxla naa la nga yaakaar ne lu rëy la lay doyee ndeke danaan la lii kat ci lii laa jëm wala dañ maa woo fii wala maa war a liggéey ci lii pour laaj ay conseil kon xeebul conseil yu kenn bësam bii nag jomb ko dañ koy ñaanal yàlla sëy bu barke njaboot gu barke yàlla boole kaak borom këram gii di Medoune Diouf moom it macha allah baax lool baax ba àdduna yëpp xam ko yor jabar ju baax kon nag dénk nañ ko ko na ko yor comme ni mu ko war a yoree ndax jami xale bu baax la ku déggal ay magam la. merci beaucoup amoon yoo koy déggal moom jami yan kàddu lay doon. mu bañ a am xarit bañ a dégg na gumba yi tamit toog say jëkkëram na doon xaritam. waaw loolu rek laa koy dénk waaw. Hmm. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, Baye la <laughs> naka mu séeri maa aussi si ngay am foofu. waaw lii de yàlla def na ko. Uh-huh. Mm-hmm. tey ñu ñëw fekk la fii ci kër Diamy Gueye tey di bés boo xamante ni bésu mbégte la tey Meroune Diouf di sa xarit di xaritu Maawo Cissé Diamy ngay doomam muy sa yaay loo mu ne la Assi sama yàlla tey bis bi tey ban yëg-yëg nga ci waa bay baa la damay sant yàlla bu baax parce que loolu laa ko doon wax tout le temps na la yàlla may bisu jàmm ndax jami euh, ban BMTV moo ñu boole woon yow fekkee nga loolu. ci keppaaru El bi kaay Mbaye lañ nekkoon di liggéey xeebu ma mu ñëw Modou Mbaye présenté ma ko teg ko sama loxo ma ànd ak moom parce que bien que ni sama expérience ci journalisme bi yàggul. mais am na tamit loo xam ne yàlla may na ma ko si ma ànd seek moom jami buy def entretien ne ma aasi ah, loo xalaat question yi maa koy def maay bind question yi ba mu baax yónnee ko ne ko nii ngay defee lii ngay introduire lii ngay defee dem na sax ba nekkatuma BMTV moom mu des fa teewul bu ñuy dem man dama koy yónnee questionnaire nga xam ne loolu yàlla moo ñu boole en fait mu continuer ci loolu nekk ma nekk yaayam mu def ma yaayam lu muy dugg wax ma lu mu xam wax ma di ma laaj conseil ci yu bëri bi may woo démb ci pour wax yëgal ma mariage bi maa ngi Thiès dama waroon fanaan foofu mais à 20h bi ma wooyee wax ma ko barki Cheikhul Khadim damaa jël oto ñibbi si Dakar la ma fekk si Dakar parce que dama bëggoon teewee lii. wax nga ko léegi Medoune Diouf kooku maa ngi moom 2008 la woon xam nga 2000 ak léegi du tey loolu yàgg na. waa def na ay fan. Mm-hmm. moom mu nekk sama collègue bu jëkkër ñu ànd ñoom daal rampe 2S la woon ba comme xoon nga jaar fu ne Medoune ñu dund lu bëri maa moom. donc man ñaari cër laa am ci xew bi. dama di wujj wujju peccorgo dama di yaayam. dama di séeréem. donc ba tax na dama koy ñaanal sëy bu barkeel. yàlla jubóole leen may leen njaboot euh, lislaam te ne ko mu muñ loolu laa koy digal na muñ sëy benn yombul bay euh, baal la. yëpp metti mais bu fekkee ne yow muñ nga kenn bañ laa xamal dara ci sa biir sëy nga bañ koo toogee fenn kenn bañ laa xamal dara nga muñ nekk sa biir sëy yàlla dafa lay jàppale bëgg sa borom kër jàppale ko def ko sa xarit comme ni ko bu jaata waxee léegi na sa jëkkër nekk sa xarit looy séq ak moom wala looy def ak moom nit mënu koo mën a xam donc yàlla barkeel ñu dund dund ba gis seen ay sët yi sëtaat. jaajëf. mais da nga sañse tey. waaw. <laughs> ku jaar baax baay Balla fekk la fii kër Jami waaw dañu ne tàgge boo dégg rek am na jàppal di bu ñu ko dee wax mbokk gaa ko waral te yaakaar naa ne bu ñu ma génnee ci Diamy Gueye jeexal sama rakk ji góor gu mu mas a àndal rek présenté na ma ko bu ñëwee su ne ko bàyyil mu bàyyi mu dem alaaji Medoune Diouf mi bis bi mu koy bëgg man la njëkk a woo téléphone balaa benn mbokkam di ko yëg mu ne ma ñëwal sama kër dama laa soxla ma ñëw mu ne ma ah sa nijaay jeneen daf maa bëgg soxna ma ne ko mooy sa borom kër ma ne ko ndax yow kilifa nga kilifa rek moo la mën a yor te Medoune mat na kilifa alaaj Medoune nekk nit koo xamante ni nit ku baax nit ku jàpp jami jàpp ay mbokkam jàpp ay nitu jami ci tabaski gii rek moo ci mujj dafa maa woo téléphone ne ma Cheikh Naar foo nekk ma ne ko man maa ngi nii sama kër mu daal ne ma xoolal sa orange money ndax am na lu fa nekk ma dugg sama orange ne fekk ko mu vidal ma xaalis bu bari ma jëndal ci sama baay xaram tabaski loolu nit ki loo koy defal nit ku baax rek moo ko mën alaaji Medoune yàlla na jàmmam yàgg yàlla ko ak sama rakk ji yàlla ba ñu am ci nag ay njaboot gu barkeel barkeel Seydina Muhammad waaw loolu rek lañu koy ñaanal kontaan naa nag ndax sagalul jami man mii la sagal sagalul jami de man mii la sagal ndax jami kenn ku ci nekk rek man la ko doon xaaree bis waaye nag yàlla nu yàlla suñu borom bi may ba ñu am bisu jàmm su boobaa la ñuy xam diggante Cheikh Naar ak Jami Gueye lan la jërëjëf kontaan naa Baye Balla. Jibi Gueye. El Hadj Baye Balla Mbour Dial bu bag Dial Thiam maa ngi lay siyaar sama mag gi. borom tus tasar. waaw loolu loolu loolu dafa leer. toj sa mbaaru mu naan tasar. maa ngi lay bëgg. maa ngi lay maa ngi lay siyaar Baye Fall la. naka mu yow moom ku la xam-xam la ak jami. loolu nag ca ginnaaw raay bu loolu dafa yàgg loolu ca mbooy jabaay la woon ak galas jabaay. jamono yi simb mbapat xam nga mu ànd ak ñun fu ne nag. nekk nit ba ba nga xam ne ni yaay Fall la jami géey taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall làmp la li mu ni mu mel noonu rek noonu moo nekk ci xolom xam nga ma la kon nag tey bisam bii ñu ngi koy ñaanal sëy bu barkeel mu am ci njaboot gu barkeel ci barki Serigne Touba. maa ngi lay bëgg. fi la lu ñu mën a xaar ci jam ci ci ci ci ci ci ci ji bi. lu bëree bari ndax nag commencé gunu sax Baye Balla ay xale yu ndaw lan commencé gunu ñu ngi ci yoon. Hmm. waaw yàlla na yàlla def jàmm rek. suñu bisu rak muy Diamy Gueye ku ne xam na ni mu moom mu nekk suñu rak ju baax Galas Jabaay di sama xarit di sama seex di sama doomu ndey moo waral. moo waral teewaay bi nag jami nag mu nekk rakk ju baax ñu koy ñaanal sëyam bi yàlla suñu borom def barke mu am ci eh, njaboot gu am barke waaw di ko ñaanal lépp lum ci mbëbët rek yàlla na ko suñu borom def nag rakk ju baax la nekk ci aar bi te yàq ko waaw yàq ko. soxna ah? lay fay baay baal la. nay bafu ci loolu. xanaa tubaarkalla di sant yàlla. di sant yonent bi di sant suñu ñaari waajur. tubaarkàlla nag Jamil Gueye nag dafa tëgg bis te xale bu yaroo ko tëgg nag xale bu am fulla xale bu am personnalité xale bu am maanaa xale bu am caractère li ci tele bi nekkul ci kër gi xale bu am fulla la am na personnalité am na maanaa fonk na boppam bëgg na boppam fonk na ndeyam xale booboo tëgg bis xam kan mooy Jamil bi sóori mi ci mbaaw mari met leen mi ci kàddu gi tubaarkàlla fara cawaan ca waan la njàmbeeg maar xaasim ak bu jaam ñu ñuul ñi moo leen moom jaam ñu xees ñi moo leen moom tubaarkàlla bu ñu demee njàmbeeg maar xaasim ak bu tubaarkàlla ku kum fa jënd nga dem ku fa jaayit nga nangu ndax ndeyam tubaarkàlla dafa sëy fan ko dojoon jógu fa sëykat la nag sëy ndeyam sëykat la doomi sëykat la ku mu mayee mu sëy ndax tubaarkàlla ànd naag baayam ba mu dem àjjana kon nag bu ay bàjjanam toogee tubaarkàlla ñëpp toog ndey si la sama waa ji dugal ma bi sori mi ci mbaaw dugal ma di sama xarit fu mu jëm yóbbu ma lu may ma fu mu xam wax ma barki démb lan ko tëggal bis fii yàggu tu pare waaw kooku magam lañoo bokk nday ak baay kon nan dem ci jëmil rek jëmil tubaarkàlla day xale bu baax di xale bu silwisé di xale bu fonk boppam di xale bu bëgg aar nag di xale bu bëgg aar nag aar nag danga ko da koo meñceeñ bëgg ko nag ci xolam ko bëgg ci xolam ki koy ñaanal nag sëyam bi yàlla nay benn yàlla nay wërsëgam yàlla na ko muurloo yàlla nay njiglaayam yàlla na ci dund tubaar kàlla ba sokkoorloog jëkkëram ne asamaan ak suuf. fay sëñ bi. naka mu bien. fekk waa Jami ma waa dëgg la. Jami maag papaam bokk baay. Mhm. muy xale bu ma bëgg bu ma jox cër bu ma respecté muy xale bu baax. dafa yàgg gëm aar bi da jàng nag man jàng lool nag macha allah waaye aar bi daal mooy li nga xam ne moom du ko këf rek si njàngam mu bëgg ko muy xale bu gëm boppam muy xale bu réglé muy xale boo xam ne doxul si taxawaalu doxul si ñàkk fay doxul dara lu lu gëm boppam te gëm aar bi rek. Jami nag bésam bii mën na nekk parce que ndeyam dafa baax yaayam dafa sëy ak sama caam bi ma bokkal ndey baay sëy bu rafet muy végé yàlla na ko yàlla yërëm. fa mu nekk yàlla na seet sedd sedd su sedd si kawam parce que dañu sonn ba ñoo wax ngóone nag di sëykat nekk ak sama yaay nag di taawam di gën ngóone mooy yaay jamin nekk jéeg bu ragal jéeg bu bëgg sey bëgg jëkkëram ragal goro yi ragal njëkk yi macha allah kaar jamil bis bi war na koo mën a am ndax yaayam ñëw ñëw si kër gi da tàqal noog suñu càmmi déedéet dafa ñëw boole ñu boolu ñëpp ñu nekk benn mu nekk jéeg baax tiituma si sëy bi ndax ndax jëm bu nuroo yaayam rek dina sëy ndax yaayam sëykat la yaayam nag sëykat la fañ ko nekkoon ba tey ma nga fa. doon. da koo daal si sang bi la. ci yoon bi ñuy ñëw maa léegi ci yoon bi ñuy ñëw ba ay noppam waaw ba ba ba ba ba ñuy indi yaayam ci kër ga jaxaaw. man maa taxawoon am fukki at ak benn doon jëkkëru doon borom këru yaayam bañ ko wàccee ba ñuy def affaire aada man mii la sama papa yebal woo ne ma boo demee bu ci def lu tuuti de ñu naan xaw ma mu naan xaw ma nijaay ma ràcc ma ne ma ne ko boo ràccee rek ma def nag waaw waxtu wu ràccee rek ma def ci nag ba ba semaine kon bu ma ndóof wooyee ne ma àndal ak sama saaliw ak sama kaba dem ñaanali Medoune doom ñu tudde ko suñu baay Medoune juuf bu gël tàppe euh, kon loolu day doon cër bu rëy ci man euh, ma di ci sant yàlla nag bañ ma boole góor gu baax góor goo xam ne ñëpp royukaay lañ ko war a def muy alaaj Cerno Njaay euh, ma di ko suivre lu bare ñu dénk ko suñu doom waruñu woon sax jóg ànd ak moom di ko ñaanali jabar dañ ko waroon bàyyi moom mu dem ñaani jabar waaye ndigal murit boo ko joxee ndigal euh, jëfe rekk a cay des euh, ma di leen sant di leen gërëm ci yombal bi ngeen yombalal suñu soxna si ngeen ñu may tey muy suñu goro ñuy ñaan ci barke xaadim rasul mi ñuy yaakaar ñuy ñaan ci barke xaadim rasul <laughs> ñuy ñaan ci barke xaadim rasul mi ñu yaakaar barke bi Serigne Touba def siin nga xam ne dañ ko jébbal suufa siin mu nangul ñu ko yàlla bu leen ci kenn ëppale yàlla na ngeen ci am njaboot gu barkeel kale dugg si eh, di sama soxna war na ànd ak medun ndax ni ma medun waxe maye koor a ko jur ak xadi maye koor ñu tudde ko sama baay sama mag bu ñuy wax alaaji duut juuf jur ko alaaji duut juuf kuma ndóofeen ma des solonik moo ko jur kuma ndóofeen ak bursin maye koor mi ma jur ñoo bokk ndey ak baay bursin kuma ndóofeen mi seere sëriñ ak ñoom ñoo bokk baay ñoo bokkit ndey ndax ay doomu bàjjan lañu ñooñu ñëpp ñu nga ñu suul ci sama biir kër jaxaw falaa laa jóge ñaanal si Medoune Jabar démb moo tax Saliou mi yërëmoom nu ma bi ma yegsee kon sant yàlla yàlla na barkeel alaaji Cerno nag yow amuñu sa fay amuñu sa pay waaye dañ lay bàyyi ak Serigne Touba ak Cheikh Sadbu bi nga yaakaar ndax ñun dañu am cër nag ci Cheikh Sadbu bu wér ndax man mii Fodé Diouf alwali moo nekk sama këyit sama mag bi ma bokkal ndey ak baay mu dëddu daaw jéeg Cheikh Saad bu la tudd. waaw ak ak Mahfous ak Nafisatu ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak ay secret yoo xam ne jarut a wax. <laughs> waaw kon nag man mii lu ma am si kër Sëñ Abo moom laa ko war a sant moom laa ko war a gërëme ndax tàggat na ma ci tàggat boo xam ne dem naa ba am fa ay responsabilités yu rëy ci kër sëriñ ndax tey jii lépp luy trésorerie lu ko commencé si États-Unis national États-Unis ba Afrique fu mu daj Sénégal ba mu jeex lépp lu lépp lu nuy kii ma lañ sama loxo bi da koy teg dépense bu nuy def si kër sëñ bi maa koy dépensé léegi sànq sëñ baa ngi may laaj dëj ba ndax yónnee naa xaalis ba war a dem te loolu yëpp moom moo ko liggéey ci barkeem lañ ko amee kon nag mu nekkoon ni koo xam ne léppam sëñ aboo la sëñ aboo la tàmbalee fa la yem ndax toog naa ak moom mu ne ma dama toog dem ba Touba dugg ci xabru sëñ Touba ne ko Mbàkke dama bëgg nga wax ma foo làqatu ci jamono ma fekk la fa jébbalu ci yow ndax bëgguma jébbalu feneen foo xam ne bokkul ak fa nga nekk ne na yàlla tàggat ko bi sëñ Aboo Madiane mi mu ñëw jox ko boppam ci biir waxtaan sëñ Aboo xamal ko ne ko man may sëriñ Touba mu xamal ko ko mu ñëw fii woo ma wax ma ko yóbbu ma ne ma kañ dem ma yóbbu la foo xam ne boo fa duggee doo ko rëcc sa àddina ak alax damay dem foofa melul ma nee na aw ma dara chômage chômage daa nekkoon daanaka lépp lu ma am falaa ko ba ma ñëwee si sëñ Abo jébbalu ci moom daf ma xool tiim si asamaan fëgg dënn bi ni muy riire mu ne ma bu la ñëpp wala da ngay jub dégg nga li ma la wax gëdd ma ma ne ko Mbàkke dégg naa ko wax ma ko juróom-ñaari yoon ne ma ñaata laa ko ma ne ko juróom-ñaari yoon mu ne ma bu la ñëw wala da ngay jug ndax mi may wax sama ëllëg te boobu xaw ma man fa ma jëm ak fu ma nekk ba ma fa jógee fépp fu ma taxaw association boo bokk ñu ne ma trésorier bi man la koy jox fan jii may ma nekk def naa fa 33 ans nekk caissier principal saa yi ma jógee bëgg fa jógee nu bañ ne ma doo fi jógee ndax wóolu na la yaan doy suñu xaalis sëñ bi jël ma encore tegaat ma fii jël xaalisam lépp teg ko sama loxo kon nag nun sëñ Abou Abdou Aziz bii sëñ Abou la am moom mu jël njabootam tàggat leen ci sëriñ bi nampatal leen ci ba xamuñu ku dul sëñ Touba rek la xam kon nag jami dama bëgg nga góor góorlu sa ndey ji daanaka ba muy sëy si kër ga yaa ko mag at yi nga am at yi nga am amu ko nekk xale bu ndaw nu nekk fa boobu nu nekk primaire di jàng daanaka loolu loolu ay moromam mu muñ mosu faa jooyloo benn doomu aadama mosu faa dóor xale mosul faa discuter kenn mosu faa jàppanteeg gorom mosu faa jàppanteeg benn njëkkeem lu ko nit wax mu muñ ko lu ko nit wax muñ ko sëy dafa yàgg te metti lu nekk traversé na ko jafe-jafe bu nekk jaar na ci musta fay musta dandu toll na jamono mu metti trop mu muñ ko te yàlla tax ba ma mosaan wax ma ne ko muñal lépp ay jeex lépp dina jeex tey jii mi ngi nii sant yàlla da doon metti jeex na ngone des na da ngaa tomb si si si tàmbali nga toll mais di nga toog ba sant yàlla bu baax a baax dool ci la nga doon sant ndax say waajur gërëm nañ la say mbokk kenn kenn jéppiwu la muñ nga fa nga war a muñe toppatoo nga sa njaboot tàggat nga leen ci li nga nekk ay magam a ngi nii di sëy kenn benn jëkkër kenn musul ñëw réclame ma ne ma sama jabar lii wala nangam wala nga ñëw ne ma dama am lu ma métti wala mu def bi lan la neex ak seen sëy leen fa naqari xaw ma ko man mii seen baay nag ma bëgg nga góorgóorlu sa ndey fa mu tegoon tànkam nga teg sa tànk xool sa mag yi nga xam ne noonu la jiitu si sëy ko réccu am nga wasila bu mat wasila am nga wasila bu mat wasila am nga kilifa gu mat kilifa muy sëñ Abdou Aziz Abo te fonk na la jox na la cër. ma doon famille bi du ñu sëy de du sëykat ay sëykat lañu. bu ñu duggee jeex na xamuñu fay. amuñu xarit yaay doon seen xarit. te je te connais. maa la xam ñun ñëpp mën nañu wax xamuñu la. kuy wër gor su ñëwee ci yow na kuy wër bu ñëwee ci yow na jullit doyloo yàlla bu ñëwee ci yow na toog doon garmi nag sàmm garmi gee ko gën te sàmm nga ko say bàyyi nii de jéeg jooyul sa kër maam nii sa kër baay man xam naa ni di nga ko géré kii laay gis jigéen mën na ko def lu ne mu xoolee la ndeyam toléré barke Seydina Mohamed du ma ko jeté fleur man du ma du ma wax du xamul parce que damay tëdd sama wetu ni joor compte ma deux francs wu doomu aadama ni un franc su ma tëddee yàlla indi ko par force ko mbay demal nga jox ko un million bi mhm. da koy indi moom laa doyloo faalewu ma lenni kenn je ne le pas de fleurs billaahi wallaahi taalaay góor guy muñal jigéen man am naa ko bu bu dul woon noonu maa dugg. li nga wax mooy dëgg. xam na bu ci dugg laa koy wax. Eh, bàyyil kii. li nga wax dëgg la jami. est-ce que jami sëriñ bi nee na. sëriñ bi nee na na ànd ak moom ci yërmande. na nga ko aimé nag adoré ko. dégg waaw doxal ci moom sentiment nag bu baax a baax a baax sëriñ bi moo ko yóbbante ne nan la ko yeggee waaw yow tamit nga xam ne kii mooy sa kilifa nga jàpp ko fonk ko nga xam ne nag baatu kilifteef bi moo ko moom nga jox ko ba mat sëkk waaw góor góorgóorlu ci nekk waaw bul xëccoo ak moom bul weranteeg moom loo bëgg ci moom naxanteel eh sa biir néeg yaa ko moom loo ci wut am ko yaa may dégg del dialogué. te nee ñetti peru salaatul Fatiha ñu def ko xëddi ci yonent bi. ñaan yàlla ñetti ñu ñaan yàlla sëy bi yàlla barkeel ko. ñaan maye njaboot gu góor ak njaboot gu jigéen. ci doole yi Moustapha sallallahu alayhi wa fàcceel ñetti peri salaatul faatiha. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala ddaalliin allahumma salli ala sayyidina muhammadin il-faatihi lima ughliqa wal khaatimi lima sabaqa naasiril haqqi bil haqqi wal haadi ila siraatikal mustaqim wa ala aalihi haqqa qadrihi wa miqdaarihil aziim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار عظيم laa yukallifu llaahu nafsan illaa wus'ahaa maa kasabat wa 'alayhaa maa iktasabat rabbanaa laa tu'aakhidhnaa in nasiinaa wa akhṭa'naa rabbanaa wa laa tuhmilnaa 'alaynaa isran kamaa hamaltahu 'alaa llaziina min qablinaa rabbanaa wa laa tuhammilnaa maa laa tahaqqata lanaa bihi wa'fu 'annaa waghfir lanaa warhamnaa anta mawlaanaa fansuranaa 'alal qawmil kaafiriin allaahumma innaka ta'lamu sirra wa alaaniyata fataqabbal maghfirati wa ta'lamu maa fii nafsii faghfir lii zunuubii allaahumma innii as'aluka iimaanan yubashshirunii qalban yaqiinan saadiqan hattaa a'lamu ولا يصيبني إلى ما كتبت عليه وردا بمن خصمته لي أرسل الجلال والإكرام للمصطفى نويت ما يجدد سنته الخرا وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنته الخرا وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنته الخرا وإني أحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام mucc jàmm xéwal ak yërmande barkeeg bëri la alal mursalina walhamdulillah